ñun c'est le meilleur quartier du Sénégal loolu mën naa leen wax ko quartier boo xam ni on a le meilleur lotissement du Sénégal quartier boo xam ni on a des routes benn waaye nee ma keroog mais yéen inondation nu mu demee foofu ma ne ko ñun dañuy inondé ñun on n'a pas un réseau qui est bon mais suñu réseau si gën Sénégal la bokk on a des pôles économiques loolu dama koy faral di ko wax ma koy bamtuwaat faw ñu xool xale yi naka la ñuy connecté woo si pour économique yooyu waa Soumbédioune aujourd'hui il faut ñu dimbali xale yi nekk Soumbédioune ñuy liggéey si pêche c'est important il faut qu'on réfléchisse xale yi dëkk ay rues si sax yooyu ñu jàppale leen ndax foofu yaa l'alimentaire et il de grands tailleurs ñu xool parce que xale boo xam ne li ngi si doon nekk sur boo ko jëndalee mu ubbi loo xam dafay jaay ay fii la ko wër kooku mën na réussir nga ñëw Blaise Diagne nga gis informatique bi lu mu ci lawee tey pourquoi duñ jël suñu xale yi di leen jàngal ni ñuy defaree téléphone bu ñu leen jàngalee ni ñuy defaree téléphone ku jënd téléphone ci koñ bi bu yàqoo ñu defaral la ko ñu mel noonu je pense qu'il faut qu'on la rue 6, la rue 22 avec euh, l'artisanat euh, et centenaire avec les commerçants chinois. Donc nous, on a des pôles économiques bien identifiés. Faut nous réfléchir. C'est pourquoi j'ai fait faire des webinaires pour l'ensemble des jeunes de la Médina. jàngal leen lu ñuy bindee projet lu ñuy defaree projet li si tegu mooy un appel à projet nit ñi déposer seen projet ñu accompagner képp ku am projet aujourd'hui na ngay gisal suñu plateforme boo déposé sa projet ou bien ñun dinañu góorgóorlu ñu financé la buñ ko mënul dinañ la yóbbu DER wala ñu yóbbu la fa nga xam ne mën nañ ko financé waxuñu rek mën nañ def lépp waaye lépp lu ñu mën daf ñu koy jaral dinañ leen ko jàppale pour Médina jëm kanam. man je rêve Médina. boo xam ni du Cheikh Ba rek moo fay nekk du Dos Santos rek moo fay nekk du Atoumane rek dafay nekk. une Médina où il y aura des leaders des champions on en capable il faut qu'on en la force waaye du Médina boo xam ni boo bëggee information boo nekkee CATB boo déggee maire bi sax xeelu la ñun on sera prêt à accueillir tous les gens yi bokkoon beneen côté xale yi di doon liggéey biir mairie bi dañu ko ne liggéey incha allah leen gën a le parce que ñun li ñu jàpp mooy suñu xel bu gàtt moo leen leen ñu noot ndax cinquante mille francs mënul faxe mënul samp kër mais ay xale lañu xëy na dañoo réer ay xale yu Médina lañu te ma leen ñaan ngeen bàyyi xiiroo bi ak jaru ko mais président vraiment il faut comprendre que nous sommes une famille nous sommes tous pareils nous sommes donc Encore une fois, on va vers des échéances très difficiles. kii wax na ko sànq Paco affaire bi du yomb du yomb ndax dans un premier temps ñun suñu biir suñu biir ñu waxee suñu biir mooy si biir benn bokk yaakaar déjà le combat a commencé ñu ngi yàq suñu der di ñuy sosal di ñuy waaye dafa nañu ñaan ñu kenn tontu nañ ko def de façon responsable humainement et, et, et silencieusement, on va gagner ces élections-là. Ça, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Monsieur Andé n'est que mutualiser toutes nos forces. On arrivera au bout de, l'effort à prendre cette mairie et à faire émerger la ville On a des idées. Nous, dañ koo jàng dañ koo xam. wóolu suñu bopp parce que jaar nañu fu ne. am na loo xam ne mën nañ ko xam nañ ko du bàkku du comba le tos mais nit bu mënee dara mën ci askanam mën ci jëriñu daf ci ngay jëriñ ne nit ñi jëriñu si wala na xoolee samay poste bind naa ko à la Médina je comprends pas que certains intellectuels se marginalisent xëy na dëgg la dañuy seexlu politique waaye il est temps que tout monde revienne et ça c'est votre combat c'est mon combat et incha allah nous allons le gagner